الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وتبتم وتاب ممساكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi delluwaat di sant suñu boroom bi ñu mayaat ñu dajewaat ci place bii di ko sant sant boo xam ne amul fu mu yem di ko ñaan mu di ñu ko may ba ci kanam a kanam ay at yu bari ba ñu ànd ko ak suñuy njaboot ba ñu bàyyi leen fi ñoom ñi di ko dundal continuer ñoo ngi nuyu waa dëkk bi yépp di ko tàmbalee ci kilifa diine yi li tàmbalee ci imam bu mag bi ba ci suuf di nuyu chef de village bi di nuyu président communauté rurale bi ak ñi mu yilif ba ci suuf di nuyu mbokk yi teew ci jataay bi yépp di leen wax marhaban bikum wa kullu aamin wa antum bi xayr wa taqabbal allahu minna wa minkum di nuyu tamit suñu gan bu tedd bi di suñu ustaaz di suñu imam di ustaaz Saïd Ly di mbokk boo xam ne ñépp ràññee nañ ko bu baax ci yëngatu bi muy yëngatu ci daawa daanaka dëkk yu bari ci Sénégal dem na fa di ko ñaanal yàlla mu defal ko wér ak wérle di ko ñaanal yàlla mu kattanal ko ba li mu ñu bëgg a waxtaanal tey mu mën ko jàllale ni mu ko bëggee ak ni mu soobee suñu borom subhanahu wa taala di ñaan yàlla tamit mu ubbi suñuy xol ak suñuy xel ba li muy wax mu mën a dugg suñuy xol ñu jëfandikoo ko jëriñoo ndax waxtaan mu gudd mu gàtt li ci am njëriñ mooy buñ jógee appliqué ndax jullit saa yu déggee qaala allah wala qaala rasul li mu war a def mooy joxe noppam bi ci boppam ak noppam bi ci biir xolam pour su jógee rek lañu wax mu ne samina wa ataana ndax samina wa asayna mooy nga jóge fi li ñu wax fi yépp doo ko appliqué ndax buñ nee la yàlla nee na yonente nee na rek ñu lay wax digal wala ñu tere la liñ lay digal bu dee yaa ngi si woon nga gën a sax liñ lay tere su dee yaa ngi si woon nga bàyyi loolu rek la wax di jëriñ te jullit fu mu mën a ne ak niveau am fu mu mën a toll dafa aajoo ku koy fàttali moo tax jataay yu mel nii ñu jar di ko bëriyal lu bëri di ñaan yàlla bañ a guddal mawdu bi ñuy waxtaane tey mooy ndaw ak lislaam ñépp xam nañ jamono bi ñuy dund jamono bu doy waar la si wàllu fitna fitnatu shubuhaat ñoo fi bëri ak fitnatu shahawaat ñaari façon fitna yépp ñoo fees ci jamono bi ñuy dund ngon jeune bi fiy dund aajowoo na ñu fàttali ko diineem bu baax mu mën a xam fan lay teg tànkam ngon mu nekk mawdu boo xam ne bu ñu aajowoo la di ñaan yàlla mu def suñu dégg ak topp di ñaanal suñu ustaaz yàlla defal ko tawfiq ba mu def ko ni soob suñu borom subhanahu wa taala wasalaamu aleykum wa rahmatullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله لأمته هاديا ومربيا فعلمها ورباها وأعدها فأحسن إعدادها شبابها وكهولها وشيوخها ورضي الله تعالى عن صحابته الأبرار الذين تربوا على يديه وتعسسوا بحديه فكانوا خير مثال لشباب المسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bi nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala di sant yàlla mi nga xam ne moo nu jubal ci lislaam nekkul sunu kàttan sunu doole sunuy kër kër yi sunuy yëngatu ba ñu jub ci lislaam yàlla la neex ñu jub ñoo ngi sant yàlla ci loolu di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba yi ginnaaw loolu mbokk yi di leen ziyaara di leen baalu àq di jiital ci nuyoo bi magi dëkk bi imaam ak ñi nekk ci ginnaawam ak ki jiite gox bi ginnaaw loolu mbokk yi di leen ziyaara bu baax a baax ci bëccëg yu mag yi nu nekk muy fani tabaski ginnaaw loolu ñu am kontante ak mbégte dellu siwaat sunu ñaareel bi yoon ci dëkk bi tey ndax jàpp naa ne mosoon naa fee ñëwa ñëw tey mooy ñaareel bi yoon kon sant ñeel na yàlla tabaraka wa taala mi ñu may ñu dund fekk ba mën a ñëwaat ci dëkk bi di ziyaare sama mbokk bi nekk sama ndeyjoor muy imaam oustaz Mbagnick wax dëgg yàlla ñu ngi ak moom ci daara jëfale ci nekkin wu rafet muy li ma koy njëkk a ñee chaque jour damay wax ne dafa yaru nit dina nekk borom xam-xam sax mais du yaru mais moom dafa am xam-xam pare yaru wax dëgg yàlla liggéey bi fële Dakar ca daara ja mu ngi ci jàpp fukki loxoom ngi ñaan yàlla mu barkeel ko mbokk yi ginnaaw loolu wax na léegi ci bi muy ubbi waxtaan wi ne tomb bi ñuy waxtaane tomb bu jara waxtaane la lu tax mu nekk tomb bu jara waxtaane wax na léegi ñaari mbir dañu nekk ci jamono joo xam ne ñaari mbir dafa ëlëm réew mi muy fitnatu subahaat ak fitnatu saxawaat fitna gu njëkk ji ji tax war nañu tàmb tànn tomb bi muy islaam ak ndaw yi di ko waxtaane mooy chaque jour war nañoo leeralal ndaw yi lan mooy lislaam war nañu leeral tamit lislaam lan la wax ci ndaw yi pour ndaw yi xam fu ñuy teg seen tànk parce que jamono bi dafa lëndëm ñi naxaate dañoo bëri fu nekk ñu nga fa bàyyiwuñu jéeri bàyyiwuñu géej bàyyiwuñu fu suufe bàyyiwuñu fu kawe fépp lañ tasaaroo ci àdduna bi pour détruire l'islam pour yàq ko dugal ci ay caaxaan dugal ci ay bànneex wootekat yi bari ba nga xam ne kenn xamul nu ñu toll li yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon wax ne innama axaafu alaykum a'immati almudillin wa ida waqa alaykum sayf lam yurfa ila yawmi alqiyama ki yàlla yónni woon ci ñun doon na wax ne li ma ragal ci yéen mooy ay njiit yuy réere laate tey ku gis woote yi ci lislaam nga xam ne gàllankoor na ay ndaw yu góor ak yu jigéen ay mag ak ki ndaw sa yaram day daw léeg-léeg nga gis ay jullit yoo xam ne xam nga ne ñii buñ dee dañuy dem safara Omar ibnul Xattaab dafa gis benn waay bu jàpp ci benn estati di yuuxu bay jooy Omar jooy sahabatul kiram ñu ne ko waaw Omar yaa ngi bëgg a waar nooy gisee ab bokkaalekat kuy jaamu xërëm ngay jooy ci mbiram mu ne ma jooy ma ngir waa ji mu ne leen jooy ma ngir waa ji waaye sama xel dafa dem ci ab aaya alquran loolu moo ma jooyloo ñu ne ko Omar ban aaya moo la war a jooyloo ci mbiru waa ji mu ne aamilatun naasiba gaa yi ne ko Omar aminatu nasiba mooy lan mu ne ku sonn te du fayeeku kii daa sonn te du fayeeku ak bëri ci Sénégal ñu sonn te duñu fayeeku yowmal qiyaama ak bëri te pourtant ñooñu di sonn dañ naan ci diine lañ nekk dañ naan ñi ngi jaamu yàlla dañ naan ñi ngi sellal fekk yowmal qiyaam yàlla du leen fay lu tax yàlla du leen fay mooy yàlla bi mu bëggee ñu jaamu ko dafa santaane nañ ko jaamu d'accord ngeen waaye dafa wone niñ koy jaamoo mu yónni ab yonent ne ko demal nga wone nuñ may jaamoo ginnaaw boo leen waxee nañ ma jaamu ba ñu taxaw bëgg maa jaamu nang leen won niñ may jaamoo yonent boobu ñëw nekk ci li ko yàlla yónni woon ba jóge fi li ko yàlla yónni woon ak niñ doon jaamoo yàlla nit ñi daal koy bàyyi dem ci leneen est-ce que kon nit ñi danañ fayeeku boroom xam-xam yi dañoo tënk texte yi ci texte yi pour nit yàlla nangu jëfam yu tudde ko surutu qubulul amal sart yi yàlla di nangoo jëf ñun ñu ngi jëf julli nañ léegi tàkkusaan pour yàlla nangu tàkkusaan googu foog mu tegu ci ay charte yu wér yu leer yàlla doo nga nangu julli gi su ci teguwul yàlla du ko nangu loolu moo tax jar naa xam parce que alxuraan dane am na ñu sonn te yàlla du leen fay te nag ñëpp a ngi sonnoon même ki nga fekk fii mu samp ab garab bi yuuxu mi ngi sonn mais est-ce que yàlla dina ko fay xoola ki takk rajo di yuuxu depuis 9 heures ba 4 heures du matin te yàlla du ko fay kooku jar naa leeralal li mu nekk lan la ba mu xam ne yuuxoom yi day tànqal nit ñi rek mais ëllëg yowmal qiyaam amilatu naasiba dafa sonn mais yàlla du ko fay sart bu njëkk bi mooy kii jëf-jëf ji na am ngëm da nekk ab jullit bu gëm yàlla borom bi tabaraka wa taala mu ne képp ku jëf te amoo iman yàlla du ko nangu wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansura kon kii jëf na gëm léeg-léeg nga gis ay nit yoo xam ne li ñuy def ci ay mbir li ñuy def ci ay mbir kenn xamul nu mu toll waaye yàlla du ko nangu kon il faut bu njëkk bi mooy mu am iman pour yàlla nangu jëf ki jëf ñaareel mooy na am ixlaas na sellal jëf ji na yàlla tax bi muy jëf jëf ji na yàlla tax saa yu nit defee te li muy def yàlla taxul yàlla du ko nangu ñetteel mooy nang ko defee ni ko yonent yàlla muhammad defee man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu yent bi nee na kenn du ko nangu képp ku sas benn mbir ci sunu mbir mi mu ne fa huwa rad dañ ko koy delloo lu tax parce que yàlla yónni na yonent bi jàngale na leeral na ba alquran moo wax ne yonent yàlla muhammad lépp la jàngale abu darda nee na benn yahud ñëw na ci man ne ma ndax diine ji yonent bi jàngale na lépp mu ne ko yonent bi jàngale na ba jàngale na booy dugg ci duus jàngale na ba jàngale boo génnee ci duus nooy génnee boo nekkee ci biir duus bi noo fay nekkee kon bàyyiwul dara mbokk yi ñett ñeenteelu charte mooy jëf ji nga doon jëf ginnaaw ba nga ko jëfee ni ko yonent yàlla muhammad defee na nga ko def ci waxtu wi mu ko defoon soo defee benn mbir te waxtoom jotut kenn dañ kenn du ko nangu bu benn waay ne woon léegi naa anticiper koor gi heure bii wala timis naa ko anticiper heure bii wala gee julli na wala julliwul julli na mais kenn du ko nangu parce que defu ko ci waxtoom kon ñaar yi ñaar yu sew la mooy nang ko def ni ko yonent yàlla muhammad defee ñeenteel nga def ko ci waxtu wi mu ko def loolu mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah kon loolu war nañ koo leeral nit ñi laa ilaha illallah muhammad rasulullah mooy yàlla la ñuy jaamu muhammad mooy wane ni ñuy jaamoo yàlla loolu mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah laa ilaha illallah mooy yàlla la ñu war a jaamu muhammad rasulullah mooy muhammad mooy wane ni ñuy jaamoo yàlla moo tax mu ne xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla jël leen ko ci man muhammad duñ ko jëlee ci kenn ak ku mu mën a doon nag kenn du jël ci yow dara ku mu mën a doon laa wax fii may wax ak yéen ku sa xel nekk rek kooku la kenn du jël ci moom dara kenn dong la ñuy jële mooy muhammad moo tax yàlla ne ko wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen muhammad indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen muhammad nag moo indi woon diini ji ku fi bàyyi li muhammad indi nga dem ci leneen yowmal xiyaam da ngaa sonn mais doo fayeeku loolu moo tax ma wax ne dafa bëri ci Sénégal ñu sonn te duñ fayeeku man naan nañ def attention pour ñu mën a ànd ak yéen ci waxtaan wii tomb bu njëkk bi muqaddima lay doon ñaareel bi ñu wax man humu shabab ñetteel mooy maa waajibu shabab ñeenteel maa xaqu shabab juróomeel ihtimaamul islam bi shabab juróom benneel ashababu fi lquran juróom ñaareel ashababu fi sunna juróom ñetteel mooy wasiya li shabab tomb bu njëkk bi te mooy muqaddima bi mooy dañoo war a xam ne l'islam pas pas la aqida wa amal wa suluk wa xuluq wa inna al islaama manhajun kaamil lil xayaati alfardiya wal ijtimaiya wa annahu yatamathalu bi kaamilihi fi shabaab almuslimin dañoo war a xam ne l'islam mbokk yi pas pas la bu nit di fas ci xolam ba pare pas pas boobu ginnaaw bi nga ko fasee nga jëfe ko moo tax yonent yàlla muhammad bu muy wax iman dane maa waqara fi lqalb ci xol lay nekk waaye bu nekkee ci xol ba pare après ndax doy na déedéet foog cër yi jëfe ko moo tax ñaari mbir yi ñoo am ci lislaam iman ak islam iman xol bi moo koy liggéeyal yàlla islam cër bi cër yi la ba tax du ñu benn iman juróom-benn tomb la islam juróomi tomb iman yëpp juróom-benn yëpp ci xol bi la xol bee koy def al imanu billah al imanu bil malaika al imanu bir rusul al imanu bil kutub al imanu bil yawmil axir al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi loolu mooy imaan yii juróom benn yëpp fu muy nekk ci xol xol bi moo koy liggéey moo tax yàlla mu ne rabbukum aalamu bi ma fi nufusikum boo ñëwee ci lislaam nag juróom juróom yooyu cër yi la shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah seede ne yàlla kenn la muhammad yàllaa ko yónni loolu lan moo koy def ci nit xol làmmiñ cër iqaami sala lan moo koy def cër yi mës ngeen gis koo xam ne day def salaata cër yi du ci bokk itaay zaka lan moo koy def sawmu ramadan lan moo koy def hajjul bayt lan moo koy def kon li ñu waxoon léegi iman xol bi la islam cër yi la kon ginnaaw ba islam iman bi nekkee ci xol bi foog amal ñëw jëf foog jullit bi nangoo jëf loolu mu gëm mu koy jëfe ci xolam ñu xam ne kii gëm na yàlla waaye wa suluk foog mu feeñ ci comportement am wa xuluq foog mu nekk ci jikkoom gis ngeen bu ñu xoolee ñaari mbir yi wala ñett muy pas-pas bi ak comportement doomu aadama ak jikkoom tey daanaka da ngay wax ne nit ñi dañuy dund lislaam bu amul jikko bu amul dara su doon ceeb la bu doon islaam ceeb la ñu ne ceeb bi amul xorom bu doon café la ñu ne amul suukar lu tax loolu lu tax loolu mooy mbir yi dañ koy dund ci kaw demuñ ci fond ba islam boobu mbokk yi aw dundin la aw dundin la boo xam ne jullit bi daf koy dund mu doog a nekk ci lislaam soo ko dundul rek nekk goo ci dara foog ñu nangoo dund diini moo tax bu ne aw dundin la wu nit di dund bu nekkee moom kenn mën na ko dund bu fekkee dafa nekk ci mbooloo mën na dund lislaam boobu waaye moom lislaam boobu jullit bi war a dund dafa ëmb dund jullit bi rawatina nag jullit boobu ñu naan ndaw lu tax li annahum humul mukallafun wal muxaatabuna awalan ñoom ndaw yooyu ñoom ñoo mesure te ñoom la lislaam di waxal xale yi nga xam ne mesure guñ lislaam waxul ak ñoom paa yi nga xam ne dañoo màgget ak maire yi am na ci lenn takaalif a sharia luñ leen bàyyi luñ leen wàcceel ñoom am na mbir yu leen lislaam teggil kon kan la lislaam waxal 100 pour cent ashab kooku ñu naan ndaw mbokk yi ndaw yooyu lislaam di waxal lislaam baalu leen dara amma gone yi ndaw yi lislaam am na yu mu leen baal dañ leen di yar rek ci diine ji ndax bu ñu màggee ñu mën a dund diine ji màgget yi nga xam ne mbir yu baree bari mënatuñu ko wàcc na leen amma ndaw yi nag lislaam jéggalu leen dara bu fekkee 100 pour cent la dañ leen laaj 100 pour cent yépp moo tax dina nekk gàcce nga ñëw ci réew mi fekk ñuy ndamoo 95 pour cent musulman te du feeñ fen dëkk boo dem ba ci seen dëkk bi suñ doon wax ne ñaata jullit ñoo fi dëkk lu ngeen di wax 100 pour cent amul amul leneen waaye feeñul fen jàkk jaa ngi ni tàkkusaan feesul te ne ngeen ay jullit 100 pour cent ñoo fi dëkk ana jullit yi amul ay amul ay ay jullit kon xanaa yuy dem jàkk kon ana jullit di laa wax ana ñu seen 100 pour cent fii musulman ana mu normalement 100 pour cent musulman soo duggee ci jàkka ji dafa rafet kon 5 heures bi waroon ngaa bañ a mën a julli ji sax ndax mbedd mu xat gaa yi la ja jàkka ji fees na ba ñu lal ci mbedd yi ndax Médine noonu la woon ah jumaa yonente bi danaan fees ci biti ba ci biti yëpp ñu lal ko soo ñëwee day mel ne vendredi lañ nekk te julli tàkkusaan la wala julli suba wala julli tisbaar wala julli gée tey balaa jàkk ji fees takk am takk am gaa yoo xam ne xam ne beñeen fag bisaab ñu doog a ñëw ci jumaa ji julli si loolu du lislaam lislaam aw dundin la wu nit di dund dundam yépp lislaam bi daf ko ëmb 24 heures sur 24 bëccëg beeg lépp loolu mooy lislaam mais naa dund lislaam parce que tey la tabaski naa am yëre yu ma teg ne ba bëccëg bi passé ma commencé waat wala ci weeru sàngam lañ nekk weer wi su amee nit ñi dañu war a jaamu yàlla su weer wi demee nit ñi loolu du diine ku def loolu da ngay sono sa bopp rek lislaam aw dundin la laa wax wu jullit di dund te dundin woowu yàllaa ngi ko gàll ci loosu ndaw yi teggil ko leen xale yi ak màgget yi lizalika kaana lishababi dawran barizan fi lmujtama al islami loolu moo tax ndaw yi am rôle bu ñu war a jouer ci société islamique mbokk yi l'islam diine jooju yàlla joxoon yonent yàlla muhammad ñan ñoo ko samp ci kaw suuf ay ndaw ndaw luñ naan ali ndaw luñ naan abu bakr léeg-léeg boo nee abu bakr benn waay bu gàtt xel jàpp ne benn paa bu màgget la woon wala usmaan ibnu affan wala ali wala bilal wala ammar li tax ngeen xam ne ñooñu ay ndaw lañ woon ba leen bi yàlla du yónni muhammad 40 ans la am te muhammad moo magoon ñi ci des kon lan lañ woon pour fii nag soo nee nañ war a dañu war a mel ne bilal benn waay jàpp ne non bilal paa bu màgget la man bala may jaamu yàlla bon war naa gérer ba ci kanam quoi teg ko ci temps bi branché wu war naa sol samay jëngal war naa war naa war naa parce que ñiñ may wax ñooñu ay màgget lañ ay ay Aboubacar mani ñooñu ay xale yu ndaw lañ woon jamono bi yàlla di yónni Muhammad boobu yonent yàlla bi mi ngi am 40 ans ñi ñëw ñëpp yonent yàlla bee leen mag kon lu muy tekki mooy ay ndaw lañ woon yàlla mësta yónni yonent mu nekk pa mais loolu réalité yi sax duñ ko nangu pa mënul communiquer ak jeune parce que booy bi naa non xoolal da ngay am na xale yu góor sax yu nekk ci kër nga ah non Ablaye Ndiaye seen papa la ñu tuddee Ablaye Ndiaye non pa bi génération dafa passé loolu ngay dégg booy di wax même suñu papa yi ci kër yi dañ naan ñu ñoo leen raw génération mënuñu communiquer ak ñoom. kon bu yàlla yónni woon benn yonent mu war a ñëw war a wax ak nit ñi fekk paa bu màgget la mais day am yu ko raw kon yàlla buy yónni day yónni ndaw lu tolloog ndaw yi xam lépp ñëw war a waxtaan ak ñoom ci loolu xam parce que xamal leen ne amul njëriñ mbokk yi ndaw ci lislaam dafa am rôle bu rëy bu mu war a se jouer dafa am taxawaay bu màgg bu mu war a taxaw bu dee góor bu dee jigéen buñ doon misaal walaw tasawarna almujtamaa qasran saamixan fa shaab labinatun min labinati hada alqasr wa juzun min ajzai mabnahu buñ doon misaal société islamique bi ñu koy misaal mu nekk benn château dañuy gis ne ndaw li benn birig la walla benn matière la bu ñu war a tabaxee château bi pour mu taxaw matière boobu walla birig boobu bu ñëw rekk château bi du mën a baax kon kan mooy ndaw li walla ñu ko doon misaal mu nekk benn appareil danañ gis ne ndaw li bu doon oto la danañ gis ne mooy caabi ji oto ngi ni taxaw sans caabi li ngeen xalaat ci oto boobu kon ndaw li mooy caabi ji wala ñuy misaal benn appareil télévision la wala benn nangam la mais am na lu ko war a taal loolu di ko taal mooy ndaw kon ndaw lu am importance la mbokk yi ci biir société bi muy dund saa yoo xamante ne am nañu bagage yi ñuy tabaxee ñu am tabaxkat bu muus bu mën li muy def danañ gis ne li ñu bëgg dina mën a nekk dinañ am tabax bu baax bu yàgg buy dund bu diire ay at waaye saa yu ñu amee matière yooyu ñu war a tabaxee mu nekk yu primé ñu am maçon bu mënul dara bu jàngul maçonnerie lu ngeen di yaakaar ci tabax boobu mooy saa yu ñu amee ay ndaw yu funax comme ndaw tey nga xam ne bëri lañ def seen bopp ak nekk ay gaynde nekk ay rappeur ay musicien di takk seeni i tubéy ci seen i xotti taat lu may ñëw léegi maa ngi koy wax apprenti wi tubéy lan lañ ko doon jël lan fa- pour lan moo taxoon mu jóg tubéy ak ceinture ak geño ñoor yéen yaakaar naa yéen ñëpp seen tubéy am na ñoor mais ñoor lan lay jëriñ mbokk yi pour lan ñu takk ko fan ci ndigg wala yéen affaire yooyu yegg seegul fii tubéy yi ci taat yi ci fii ci pooj yi silib yi ne dung ci biti nga dafa ne ponkal muy daw na di di yëkkati tubéy ci kaw di daw di yëkkati tubéy kañ lay yegg fu mu jëm wala maçon bi nga xam ne saa yi tegee ñaari birig yëkkati tubéy ji encore loolu muy liggéey kañ lay baax kañ lay pare mais loolu ban aada la loolu kan lañ ciy roy moo tax dañoo dem ñun ba xamatuñu ñu ñuy roy mooy ñu am ay ndaw yu fënëx fënëx nga xam ne tey seen bopp yi dara nekk ci même boo fekkee tey jeunes yi toog di waxtaan doo ci jëriñu même seen langage rek munoo comprendre da ngay gis ku wax ba pare doo mun a xam kii lu mu wax ay baay waaw ah ay ma ay kenn xamul sa yaram day daw loolu nag moo tardé Sénégal ay ndaw yu funux yu amul repère amuñu royukaay yi ñan la ñuy roy ci Sénégal démb jigéen ji gën a yées ci àdduna jigéen ji gën a yées laa wax de cib dëkk su la nit ñi doon yedd dañ naan la loo bon bon boog war ngaa jur mbërum làmb loo alku alku war ngaa jur mbërum làmb tey buñ lay tagg loolu mooy pay te ku yées lañ ko doon wax jigéen ju bon lañ doon wax lool ñu dem tey ñan la ñuy roy ci Sénégal ñan la ñuy roy ñan ñan ñooy royukaay yi mbër yi footballeurs yi musiciens yi ñooy royukaay yi wala ñett ñi ñooy royukaay yi ci Sénégal koo gis royul mbër mu ngi roy benn footballeur ku royul footballeur mu ngi roy benn musicien moo tax peuple peuple bi nekk peuple bu funax peuple boo xam ne feeg ay at kenn xamul fuñ jëm kon loolu moo tax mbokk yi saa yoo xamante ne ab société yar nañ seeni ndaw former leen jaaral leen fi yonti yàlla Muhammad jaaraloon la ndaw yi mu yaroon yonti yàlla Muhammad génnul àdduna lu dul islamisé na golfe bi jamono bi ko yàlla di yónni ñeent fukki at la am bi muy génn àdduna mu ngi dund juróom benn fukki at ak ñett kon ñaata at la dund diine bi ah 23 ans ci la samp islam bi islamisé golf bi yëpp benn drapeau di naaw laa ilaha illa muhammad rasulullah yonent yàlla muhammad génnul àdduna lu mu laax lu islamisé na golf bi su ma nee golf bi waxuma arabi saoudite de waxuma waxuma màkka de golf bi laa wax loolu ngeen dégg ñu naan xalijul arabi nga xam ne état yooyu yëpp ngay gis ñu nekk ay julit yonent bi génnul àdduna dul islamisé na ko ñépp di jaamu yàlla mu ànd ak ndaw yooyu ma leen doon wax sànq ñoom Aboubacar ñoom Omar ñoom Ammar ñoom Sohaib ñoom Mus'ab ibnu Umayr premier ambassadeur yonent yàlla Muhammad Madinatul Munawwar yonent bi nekk Makka préparé Ammar mu dem Médine bala ji terrain bi balaa yonent bi ñëw fekk Ammar genn wàllu Médine yëpp tuubloo na ko gis nga démb la l'islam amoon cafka ndax ñi doon dugg ci l'islam dañoo xamoon ne ñoom ay élément lañ ay membre lañ yoo xam ne lii ñu dugg même bu yonent bi génnee àdduna ñoom dañ ñoo war a liggéey mais xoolal ñun tey xoolal ñun suñu bopp ñun ñi ñu woote yëpp ñun ay jullit lañ ñu ne ñun ñëpp ay jullit lañ comme li ngeen wax léegi léegi ngeen ne giro quatre-vingt lépp ngeen ne cent pour cent musulman du la ngeen wax cent pour cent mais du feeñul fen feeñul fen doo gis dara doo gis sax benn trace islam ci mbedd yi ci biir kër yi doo gis dara démb loolu amul woon démb jullit ñëpp dañoo yëgoon ne ñoom ay jullit lañ dañoo war a dund diine ku ñëw jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loxoom ba nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah soo waxee ñaari baat yooyu da ngay yëg ne simmi nga yére yi nga soloon sol nga yeneen yére mi ngi mel ne militaire suñu la yóbbee léegi nga ñu lay recruter nga apt ci saase dañ lay wat ndel similoo la yére yi soloo la yeneen yére solal la yeneen dàll solal la beneen laafa suñ la indiwoon ba ci naaj bi ne la tëddal fii ba suba da ngay tëdd luñ la wax nga def démb gars yi loolu lañ doon yëg bu ñu waxee bu ñu tuddee baatu seede yi ba pare da ngay gis kenn ne woon yonent bi lan moo ma war yonent bi ne li ma war moo la war nga génn xoolal Aboubacar keroog bu mu duggee ne yonent bi lu ma war yonent bi ne ko li ma war moo la war yonent bi Aboubacar daal di génn bi muy dellu si dafa indaale Ousmane ibnu Maazun premier jour am deuxième jour mu indi Ousmane ibnu Affan troisième jour mu indi Bilal quatrième jour mu indi Arqam ibnu Abil Arqam ñun depuis ñaata ñu ngi ci diine bi depuis ñaata at kenn ku ci nekk ci ñun toog fii bi nga nekkee jullit ak léegi waxalal yàlla ñaata nit nga dugal ci diine bi ku nekk fi nga toog góor ak jigéen nag laa wax ku nekk ci ñun laa fi nga toog poseel sa bopp question sa biir xol ñaata nit laa dugal ci diine bi est-ce que fexe naa sama benn waaye bu daawul dem jàkk ma fexe ba muy dem jàkk sama benn waaye bu daan tux fexe naa ba mu bàyyi tux sama benn waaye bu daan fecc fexe naa ba mu bàyyi fàcc xale bu jigéen bi daan meesu ci koñ bi di sol ay yére yu bon fexe naa ba mu teggi ko di muuru kenn ku nekk laajal loolu sa bopp. danañ gis ne kon bu amee lu néew ci ñun ñoo koy def wala ñenn ñi sax dañ cee gàttañ lu bal sax am na ci ñun ñoo xam ne seeni rakk seeni jabar seeni frère. seeni seeni seen yoon nekku ci leen yàlla jubal ixwaan yi mbokk yi saa yoo xamante ne société bi ndaw yi yaruñu leen ci diine société bu fënax a ngoog société bu nëb a ngoog yàlla day misaal boroom xam-xam yi di wane société bu baaxul nan la mel ñu ne dafa mel ne xar mu médd xar su méddee nu ngeen koy def ngeen koy sànni fa ngeen ko sànni bu fa defee trois jours lu muy def day toj day neewi toj bu tojee lan mooy génn ci yaram bi ay élément yuy yëngatu loolu mooy société bu baaxul mooy société boo xam ne dafa am njaaloo dañuy ëmbal jigéen ñi di naan sàngara mu am ay agression mu am mboolem lu bon looy gis mu feeñ ni ci mbedd yi mooy lu nëpp liy génn ci biir société bi lu nëpp la comme société bi dafa médd comme xar mu médd ba neew yi ba toj ca biir kër ga la neewee ñu sànni ko ci mbedd mi moo tax xale bu jigéen bi bu génnee ci mbedd mi ñu ëmbal ko xale bu góor bi ku génn guddi mu dóor ko jaasi mooy li ngeen di gis lu bon loolu yooyu di feeñ ci mbedd yi ba ñëpp di ci teg bët léeg-léeg nga dox ci mbedd ba caag rek gis xale bu góor ak xale bu jigéen bu sës ci miir yooyu ngeen di gis mooy société bu nëb bu baaxul. waaye mbokk yi société boo xam ne dañ ko yar ci pas-pas bu leer bu set ba mu gëm pas-pas bi mu taxaw di jaamu yàlla di ko jëfee ñu yar société boobu ñu am xam-xam ñu am culture islamique ñu am comportement yu baax seen jikko baax société boobu bu la neexee nga lal basang ci mbedd yi fanaan foofu kii xam na daara jim nekk borom daara bi maa ngi moom dañoo ànd màkk ñu aj portable am daal di réer ñu dem ba egg sunu fi nu dal mu laamu poosam gisul portable am mu ne sama portable réer na ñu woote ñu jot benn naar mu ne ñu ñëw leen ci kaaba gi ci place sàngam bu ngeen ñëwee ngeen laajte fi ñuy denc bagage yu réer yi yéen ñëw ñu jox leen ko ñu ñëw fekk benn kër goo xam ne kër gi mbooleem appareil bu réer comme portable dañ ko wutal sax courant branché ko pour batterie bi du wàcc pour borom bu wootee ñëw jël buy fam at bi jeex ñu ñibbi Sénégal maa ko njëkk a ñëw mu ñëw sama ginnaaw wàcc aéroport jël taxi di waxtaan ak chauffeur bi egg këram di wàcce bagage yi fàtte portable bi fi mu toogoon nii ci kaw bi mu duggee ci biir këram mu fàttaliku ne portable am mu ngi ci oto bi mu woote jot boîte vocale gis ngeen ñaari société yi fee dafa réer fii réerul fii réerul de wala dafa réer fii réerul xoolal fee daa réer mais gis nga parce que ñële dañ leen yar ci yàlla fii lu ñu leen yar ci àdduna ci alal lañ leen yar alal loolu moo tax gis nga nit ñi daan jël gaal yi di xotti jëm Espagne parce que alal lañ ñu yar moom moo tax léegi ñëpp nekk ay mbër ñëpp nekk ay musiciens ñëpp nekk ay rappeurs parce que ci alal lañ ñu yar ko amul bokkoo ñeneen dañ leen yar ci yàlla dañ leen xamaloon ne ku am yàlla ñàkkoo dara ku amul yàlla nag amoo dërëm te bala nga koy xam nga dee balaa ñuy xam ne ku amul yàlla amul dara mu dee rek mbiram daal di leer mu xam ne amul woon dara fii loo dajale jamaaw walam yaakulu dañuy dajale rek mais duñ lekk lépp de dañuy xotti rek duñu sol lépp de dañuy tabax rek mais duñu dëkk ci lépp léegi gis benn waay bu ñëw tabax château château bi lu muy ngand ngand benn néeg lay fanaan lal bi lu muy rëy rëy rëy waxuma day tëdd ci lal bi yëpp de mais benn côté léeg-léeg sax mën na tëdd benn côté ba bët set du bërëb bu feneen fi voilà kon loo fi lan la lan la lan moo la war a këf lu dul nga jaamu yàlla kon mbokk yi war nañu yar sunu pas-pas gis nga l'islam bi mu ñëwee di woote li mu njëkk a yar jullit yi li mu njëkk a yar jeunes yi mooy pas-pas mooy lu nit di gëm aqida moo tax yonent yàlla Muhammad bi mu ñëwee fekk na ci kaaba gi ñaata yàlla ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett mais Muhammad dafa taxaw di wan nit ñi lii du dara xoolal ñun tey ci Sénégal laa wax waxuma yeneen dëkk da ngay gis ay jullit yoo xam ne bokkuñu pas-pas kii yàlla la gëm kii sàmba la gëm kii demba kii kumba kii garab kii daa gëm ne moom bala muy dem jumaa sax war naa dem sangu ci tuur yi ci xamb yi ba ni këj doog a génn kii sax daa gëm ne moom bal balaa muy dugg géej na takk ay ndombo na tuuroo saafara na dem ci góor gi nangam nangam mu defal ko ay xur xar fuufa mu doog a sangu dem géej kon si booy mbaa sangu nga non sangu gu ma yow yow yaa tax amuñ dara bi ma nee sangu laa xam ne affaire yi du baax jullit bu gëm loolu jullit bu gëm ne balaa affaire am baax foog ñu sangu ko ci ay guy foog ñu tur ko deret foog ñu reyal ko xar yonent yàlla Muhammad bi mu ñëwee yooyu la njëkk a dindi ci xelu nit ñi ba yàlla rek des ci ñoom mu doog leen ne bismillah l'islam woote na màkk fukki at ak ñett defuñu benn jaamu yàlla fukki at ak ñett yonent bi xam nga lu mu doon liggéey pour xol yi na ci reen yi génn na ci ndombo yi génn na ci petaaw yi génn na ci lam yu ñuul yi génn na ci lamu përëm yi génn na ci ndombo yi lépp ba mu set mu doog na julli leen parce que julli boo xamante ne mi ngi ànd ak ay ndombo du dem julli boo xam ne mi ngi ànd ak këram ci biir kër gi ah xàmb baa ngi nii ci biir kër gi mu ànd ak julli julli boobu du dem demul fenn parce que yow gëmoo yàlla dangaa war a taxaw ci kanamu yàlla naan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu nekk dëgg saa yoo taxaw ci kanam yàlla ne iyyaka na'budu ñu ne la du dëgg parce que sa ndigg li yàlla rek nekk ci ndigg bi eh, ndomb bi ci ndigg bi ak lam bu ñuul bi ci loxo bi lu muy tekki gis naa benn xale bu jigéen semaine bi rek avant ñu julli ma ne ko lam bu ñuul bi mu ne ma daf may musal ci cat cat cat waaw su- ku ma nar a catu rek ci lam bi ah, ma ne ko kon missile la quoi radar bu la sànni rek ki moo ko naan fra- paratonnerre la quoi moo koy yóbbu fële mu ne ma daanaka loolu la ma ne ko léegi ana yàlla ayna allah ana yàlla Sénégal nag ki fi dof mooy ki ne yàlla laa gëm ñu ne ah yow yàlla nga gëm demal waaw léegi ku gëm yàlla kese bu fekkee dof la li Ibrahima doon wax Ibrahima alayhi salaam loolu la doon wax mbokkam yi lan la doon wax mu ne leen man mi gëm yàlla tabaaraka wa taala moo maay dof yéen nag bu fekkee dañu ne ku gëm yàlla kese yow normalo yow yàlla rek kon yow yàlla rek moo la doy moo tax doo sangu doo nangam doo nangam nga ni waaw man yàlla rek ñu ne yow sa mbir du baax dëkk bi léegi foog nga kii foog am yooyu laal moo tax islam nanguwul loolu l'islam dafa ñëw yar pas-pas wala bilaal jamono yi nga ko doon dóor mokkul ci alxuraan lu dul ixlaas qul wa allahu ahad gars yi di ko dóor di ko weddiloo yàlla mu naan ahadun ahad yàlla rek ahadun ahad lu muy tekki ahad ñu jàng arab lu muy tekki ahad kenn la yàlla du def boo defee yàlla ñaar rek pare nga bokkatoo ci diine yow moo tax pas-pas la islam njëkk a yar il faut pas-pas yi set tey lan moo tax nit ñëw ne la bul julli bul woor ma won la yàlla léegi jëran nga bàyyi julli bàyyi woor ñu wax nga ni loolu dafa yéex waaw got laa naan jàkk gis ko waaw mu ne nii benn suñu benn dëkkandoo doomam daa ñëw rek ni ko bàyyi pa mu ne ah mu ne ko gis naa yàlla loo ko wax eh non wow jotuma ko wax dara nag mu ne xaar ma ñëw mu dem indi bale xam ngeen bale taxaw yi mu jël bant bi dóor booy ba bunde sac ba bant bi damm mu ne beneen yoon ne boo ko gisee di nga ko wax samay problème parce que man xam nga ne man dama góorgóorlu laa sama problème yaa ngi nga gis yàlla waxoo ko ko su ma la wullee ba nga nooy boo demee boo gis te yàlla di nga ko wax sama sa problème mu papa nga gis yàlla waxoo ko ne sa- sama papa dafa am problème pour mu génn ma ci wax dëgg ma yow léegi boo demee beneen yoon boo gisee di nga ko wax sama problème yi mu réglé ko allahu akbar kooku sax papaam moo ko gën a yeewu keneen ki may jàngal doomam benn waayam da ko doon wax ne man yàlla laa nu ko yow yàlla nga waaw chaque jour mu koy rey man yàlla laa yow yàlla nga kii yàlla la benn jour waa ji génn ñu agressé ko ci suñu stade boobu ba ñu yóbbu ko hôpital ah parce que dañu ko dóor jaas ci bopp mu am ay semaine ñëwul kër waa ji ba mu hôpitalisé ba génn mu dajeeg jabar waa ji yow yaa sa jëkkër ñu bon ngeen ngeen yëg nga dañ ma agressé saa ngeen ñëw seet si ma yéen baax na ah, jabar ji ñëw wax ko waa ji ne ko yow ah diw kat génn na ci ñun ne lu xew nee na boobu ba léegi seet si wuñ ko te moom dafa sonnoon waa ji na jabar ji sa yoon nekk ci génn ci rek bàyyi ma ak moom mu wér këng rek jubal kër waa ji ñu ne ko yow pare naa ci yow dañ ne ko lu ma la def mu ne yëgoon dañ ma agressé mu ne yëg naa ko mu ne yow ñëpp seet si ma ba mu des yow waa ji ne ko yéen yàlla yi bu ngeen di xeex lu ci sama yoon man bindeef mu ne lan looy wax nii mu ne ah di yow yàlla nga ki la agressé yàlla la yéen yàlla yi ngeen di xeex man mbindeef mii lu may uti ci yow nee na doon su ma ñëwee ke- yàlla bi koj ma ne ma ne kee nga faral nag mu ne waaye yow yow est-ce que normal nga mu ne ah yow waxoo fi ne yow yàlla nga mu ne eh waay ba ba yooyu waay xam nga kon ñii di ñuy wax sax gëmuñu ko yàlla loolu yëpp li ko waral mooy pas-pas yi ñoo baaxul xoolal yàlla lu mu wax ci Qur'an ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin tegali leen ay walakin wa wa xaatama nabiin léegi yàlla ne man maa yónni muhammad mooy sama yonent du bàyyi kenn mooy yonent bu mujj xaatam xaatam lu muy tekki moo tëj bunt yi benn waaye feeñ fi léegi ne man yonent laa gaa yi topp ko ana pas-pas bu wér bi ñaata wootekat ñaata yonent ñoo nekk Sénégal ñaata yonent waxuma sax yonent mais ñun amoon nañ sax yonent bu jigéen Dakar waaye moom yàlla noppal nañ ci moom comme faatu na waaye nit sax woote na yonent jigéen Dakar te yàlla ne xoolal rek sur Yusuf musuma yónni yonent lu dul góor la ñun ñu gëm ay yonent yu yu yu jigéen waxuma sax ay góor mais yu jigéen ñaata wootekat ñoo nekk Sénégal ñaata wootekat te ku woote rek li garaaw mooy am ay taalibe ku woote rek am ñu la wiisi lu ko waral mooy pas-pas yi ñoo baaxul parce que nit ñi amuñu formation pas-pasu diine moo tax ku woote rek xale yi ñëw wiisi la nga fanaan loo leen fecc loo di leen tëxloo yàmba ndeysaan léeg-léeg am ñu ci rëcc léeg-léeg am ñu dof ñaata jeune ñoo dof tey ci Sénégal ñaata moo tax loolu autorités yi sax waroon nañ cee jóg jël ay doomu jàmbur di leen dofloo hein lii dof ci Dakar ay jeunes kenn xamul nu mu toll lu tax parce que pas-pas yi la moo baaxul islam bi mu ñëwee pas-pas la njëkk a yar ci ndaw yi bi mu yaree pas-pas yi mu wax la nag lii nga gëm da ngay fexe nga jëfe ko waaye da ngay fexe mu nekk ci sa comportement da ngay fexe mu nekk ci sa jikko ba lan moo tax l'islam bëgg loolu mooy hatta iza xaraju ila suuni alxaya al amaliya kaana xayru mithaalin lil muslim l'islam dafa bëgg ñu yar ndaw yi ba- ba buñ ci yaree kenn ba mu génn bu fekkee jaaykatu bitig la ñu gis commerçant bu jub bu fekkee docteur la wallahi sànq bi ñuy ñëw maa ngi koy wax léegi oustaz Manick oto bi dafa surcharge police yi droit ñu tëngéej apprenti bi yuuxu daal ne personnel mille waaye te wàccagul oto bi mu ne mais duñ yàgg quoi ñoo ne policier bi mille rak jël permis bi départ ma ne ko loo joxe mu ne mille est-ce que kooku ñaar ñooñu dañ leen yar ci pas-pas bu baax l'islam mooy dañ lay yar ba boo génnee ci mbedd mi doo lekk ger mboolem fu la société bi teg ngay liggéey sa salaire nga moo lay doy donte ne ñaar fukki dërëm la xoolal Omar ibnul Xattaab ci jamonoom kër yi mu daan dem di fuuglu di xool guddi lu xew jaar ci mbedd yi benn bis mu dégg benn kër yaay ak doom di waxtaan doom ji yaay jaa ngi naan doom ji nañ njar soow mi nañ ci yokk ndox ndax bénéfice bi bari ndax ñu ngi daan jaay benn paan nañ ci yokk ba mu nekk ñaari paan ndax xaaj bari doom ji naan yaay ji ah loolu lislaam da koy tere loolu Omar daf koy tere mu ne ko Omar nekku fi mu ne ko in kaana omar laa yaraana fa rabbu omar yaraana bu dee omar nekk fi borom omar a ngi fi gis nga islam loolu la yar nit ñi sama chef nekku fi mais chefu chef yaa ngi fi mais est-ce que loolu am na Sénégal tey ba palais de la république dañuy lekk ger ba palais balaax dañuy lekk ger ndax gerkat bu ngand bi foofu la dëkk kon fu ñu jëm société boo xam ne ñi leen jiite ñëpp dañ leen a corrompi ñëpp ay lekkatu ger lañ bal ñi kilifa diine yi sax ñoo ëpp ci ñi lekkat ger société bu mel noonu fu mu jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne woon sahaaba bi keroog ba mu gisee yonent bi daal di ñaan yàlla nangu mooy Saad ibnu Abi Waqaas léeg-léeg nga toog ba caag benn paane la ñaanal ma oustaz nanga ma ñaanal ñaanu xaas bu ngeen ko dégg du xaas de Saad ibn Abi Waqaas la comme ñoom xamuñu kii bi ñu naan xaas ndax Waqaas biñ ci dégg ñu naan xaas ñaan xaas Saad ibn Abi Waqaas la moo ñëw ci yonent bi ginnaaw bi ko yaayam sonalee ne ko damay tëdd fi ba dee boo génnul ci lislaam mu dem ñaan ñaan yoon ne yonent bi man ne dama bëgg sama yaay léegi dama bëgg nga ñaan yàlla sama yaay dugg ci lislaam yonent bi yëkkati loxoom daal ne allahumma hadi umma saada yàlla yàlla nga jubal yaay Saad yàlla yàlla nga jubal yaay saat mu dem këram rek yaay ji daan ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasul rek mu daw dellu di ko di kontaan loo yonent bi di ko bégali ji mu ñëw yi wax ko yonent bi ba pare daan na yonent comme gis naa ñaan nga yàlla nangu ñaanal ma man tamit bu ma ñaanee yàlla nangu yonent bi ne ko yaa saad aturidu an takuna mustajabu daawa da ngaa bëgg boo ñaanee yàlla nangu mu ne waaw mu ne ko atti immat amaka li ngay lekk na dagan saa yoo lekkee lu dagan boo ñaanee yàlla yàlla may la ah nañ xool suñu bopp nag tey foofu nañ xool suñu bopp ñun ñëpp ndax ñu ngi lekk lu dagan saa yooy lekk lu dagan soo nee allahumma asamaan bi xiin bu tawee boo nee allahumma mu arrêté at immat amaka ya saad takun mustajabu daawa saa yoo lekkee lu dagan yàlla nangu sa ñaan mbokk yi lislaam dafa bëgg ñu yar ndaw yi ba ndaw li saa yu génnee ci biir dëkk bi fuñ ko mën a teg ku fa dem fekk fa waaju baax doo fa jóge mukk naan cëm docteur bi ma fekk fii tey léeg-léeg nga dégg xam ne xale bu jigéen mu ne docteur bi nekk fii ni mu cagaa kon ça veut dire que ku fa dugg du yem ci pikiraate kese du yem ci jël température kese léeg-léeg nga dégg xale jigéen ñi ne téyër bi ni mu cagaa yemul ci jël mesure kese ndax ñëw rek da ngay jël mesure ñu ne dugal ci néeg boobu wàccee rideau bi loolu yemul ci mesure mesure mesure kay mën nañu ko jël fii gis nga ça veut dire que moo tax l'islam bëgg ñu yar nit ki ba saa yuñ ko tegee ci pos ku fa dugg rek ah bu génnee daan ne ah waa ji de xaw ma ku ko jur waaye vraiment yar nañ ko loolu l'islam bëgg ak waa ji fuñ ko mën a teg nag ci biir société bi bu fekkee policier la gendarme la minute tey xoolal ci Sénégal munoo wax benn corps lu dul ay lekkatu ger fa wala nga ni bal ñoom ñëpp ay lekkatu ger lañ munoo wax dara laa wax tey ci Sénégal dara dara dara lu dul rek ndeysaan di nga fa gis lekkatu ger ñoo xam ne alal moo leen jiital mbokk yi sunu diine mooy lislaam ndaw daf ko yitteel trop trop trop trop daf ko yitteel ba yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne juróom balaa juróom ñëw xamsun qabla xams ci biir juróom yooyu mu ne shababika qabla haramik bi nga nekkee ndaw jaamul yàlla balaa ngay màgget ñun nag Sénégal mooy boo nekkee ndaw ñun Sénégal mooy boo nekkee ndaw da ngay dégg ñu ne sabiyan sabiyan walaw kaana nabiyan ndeysaan benn mag mu ne sabiyan sabiyan walaw kaana narabon Sénégal dañoo gëm ne boo nekkee ndaw waroo jaamu yàlla xale jigéen yi boo nee benn xale bu jigéen tax muuroo mu ne ba ma mag ba bàyyi ba ma mag ba ci kanam man may xale bu ndaw am gis nga boo nee xale yu góor du tax doo dem jàkk ñu ne non waaw ma nekk pas pour ñoom mag mooy jaamu yàlla même boo nekkee xale bu ndaw sax di jaamu yàlla léeg-léeg sa nga gis benn xale bu baax ci koñ bi daal di faatu rek ñu ne kii xamoon nañ ne du gudd fan ndax dafa teel a sellal torop kii ah kon ça veut dire que da ngaa war a rajaxe ba doyal nga doog a ñëw jaamu yàlla loolu ban diine la kii xamoon nañ ne du gudd fan ndax chaque jour mu ngi ci kanamu jàkka ji léeg-léeg sax nga gis xale bu ndaw di dem jàkka nga gis ñu ne benn benn waaye bu ñëw sa doom ji tere ko jàkka ji parce que li mu jóg te baaxul lii nii baaxul waa léegi mbokk yi dañuy laaj ñu ne kon léegi kan moo war a dem jàkk kan moo war a jaamu yàlla su fekkee xale warul jaamu yàlla te yàlla ne musuma yónni yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla ndaw daf ko yitteel ba yonent bi ne shababika qabla haramik bi nga nekkee ndaw jaamul yàlla balaa ngay màgget ñëw na ci beneen hadis mu ne lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta tusal an arbaa xisal wa an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla yonent bi nee na nit bu ne cëpp yowmal xiyaam dinañ ko laaj ñeent ñeent mbir boo ne cëpp yowmal xiyaam sa dund ci lan nga ko jeexal sa ndaw ci lan nga ko jeexal dama leen di laaj ndax ndaw bokk na ci dund gi wala bokk ci ci la bokk mais lu tax yeneen tamit ne dañ la laaj sa dund ci loo ko jeexal waaye ñu laajaal nag sag ndaw ci loo ko jeexal sag ndaw kan mooy ndaw man humu shabab ndaw mooy ki am 18 ans ci ay at jëm 40 ans ci sharia ndaw mooy ku naqam am kawar poqataanam mu gént sëy bu dee jigéen mu gis baax ki mooy ndaw kii toll fii ci aas bii ma wax l'islam kii la wax moom mooy ndaw boroom xam-xam yi ne li ëpp day am 18 ans jëm 40 ans wala fii mooy ndaw 18 ans 40 ans ñi ñooy ndaw yi léegi nag xoolal leen seen bopp 18 ans ci Sénégal ba 40 ans fan la ñu def seen jaamu yàlla fan ba leen di laaj 18 ans ba 40 ans mbokk yi ci Sénégal fan lañ ko def te yonent bi nee na ndaw dañ koy laaj yowmal qiyaama ndaw dañ koy laaj nit bu ne cëpp yowmal qiyaama malaaka yi ne la bi nga amee 18 ans ba ngay am 40 ans loo fi liggéeyal yàlla fii tey loo ëpp ci ñun lu ñuy wax buñ demee yowmal qiyaama bu ñu leen laajee loon da nga gis ku ne man day wax dëgg yàlla ba ma amee 18 ans wala ba ma amee 20 nangam am naa ci ñaari doom yu ma takkul seen yaay bu dee xale bu jigéen la mu ne am naa ci ñetti doom da nga ci gis ku ne jamono yooyu man da- sama ndigg daawul laal suuf waaw benn irkil laa woon di nga ci gis ku ne man benn benn te yàlla daf koy laaj yowmal qiyaam bu leen yaakaar ne ndaw bii ngeen toll nii yéen a ko def seen bopp bal yàlla moo ñu ko baaxee yàlla moo ñu ko may te daf ñu koy laaj parce que mooy dynamique mooy effort mooy doole ji bu yàlla def ci yow pour am loo ko liggéeyal pour am loo taxaw léegi nag yow nga jël ko sarax ko xale yu jigéen yi wala nga jox ko xale yu góor yi foog yàlla laaj la ko ëllëg sag ndaw ci loo ko dugal benn xa benn paa bu ànd ak ay xale yu góor ñu nekk ci gaal gaal gi am jafe-jafe di waaj a suux góor gi daal ne ci gaaw gaal ga zëy daal dem tefes xale yu góor yi daal di jàpp seen gémmiñ hee góor gi du nit paa bi ndekkee seytaane la góor gi dafa naaw ñi naan dafa jaar dafa ku nekk di wax biñ eggee tefes ñu fekk ko mu taxaw di xaar xale yi ñu ne ko góor gi foo jaar ban doole nga am ni ba jóge fële ci biir géej gi dal ci tefes gi mu ne bi ma nekkee ndaw dama joxoon yàlla sama ndaw bi ma màggatee mu téye ma bi ma nekkee ndaw dama joxoon yàlla sama ndaw moo tax bi ma màggatee yàlla téyel ma boppam ñun sunu ndaw kan lañ ko jox ñu ci bëri jox nañ ko ay dàkkumba ak déggee na kodd moo tax boo màggetee rek ut ay beeke nañ yàlla jubal mbokk yi ndaw yàlla daf ko fonk yonent bi nee na yàlla daf koy laaj borom bi tabaraka wa taala mu ngi wax ci alquran allahu alladi xalaqakum min daafin thumma jaala min baadi daafin quwa thumma jaala min baadi quwatin daafan wa shayba aaya bii rek moo ñuy wax ne yàlla dafa fonk ndaw allahu alladi xalaqakum min daafin yàllaa leen bind ngeen nekk ñu néew doole loolu fan la loolu fan la yàllaa leen bind ngeen nekk ñu néew doole loolu fan la bi nga nekkee liir liir dafa am doole wala dafa am kattan liir damay laajte liir dafa am doole wala dafa am kattan dafa néew doole lépp dañ ko koy defal lépp dañ ko koy defal mu ne yàlla na maa leen bind ngeen nekk ñu néew doole thumma jaala min baadi quwatin thumma jaala min baadi quwa ginnaaw nekk liir googu yàlla na ma indi doole fan la mais bi nga nekkee ndaw nii di cëppi cëppi buñ tegoon léegi saaku ceeb ne la boo ko yóbbee géej gi cinq mille a ngi nii nga ni waa ji perte na zaj nga koy def ah xoola oustaz ku mu doon nettali léegi léegi ki dawe fii ba barñi diggante fajar ak huit heures kooku lan la doole nga fii rek ne seulement rek daal ne zaj barñi daal di ñëwaat allahu akbar kooku de xanaa war na ne gars yi man xale bu góor dëgg laa ba léegi mu ngoog loolu mooy doole waaye xoolal foofu après yàlla mu ne ginnaaw doole googu daafan après ma def la nga nekk am yembar mooy lan nga nekk màgget jàkk ji sax mënatoo faa dem léegi sa biir nekk ngay jullee après wa shayba bi jaaw yi commencé wextal léeg-léeg ku ne ne asalaamaaleykum nga ne kooku mu ah ñu ne la man la diw nga ne ah ah, diw an sa baay gis nga léeg-léeg sax dootoo gisati bëñ yi commencé beñ tànk yi dootuñu yóg kon yàlla lim ñu wax mooy dëgg yàlla dafa fonk ndaw mbokk yi beneen misaal yonent yàlla Muhammad bi ko yàlla yónnee mu jóge xaaru xira daw dem këram Xadija fekk fa Xadija mu naan muur leen ma sàng leen ma Jibril di ko feeñu ci asamaan mu ne am na lu may gis Xadija ne ko nañ dem ci sama baay Waraxa muñ demee mu xoolal ñu li lan la biñ demee Waraxa ne leen kii malaaka bi doon ñëw ci Muusa mooy ñëw ci moom waaye yaa layte nii kuntu fiha jaza aka neexoon ma nekk ndaw waraxa mu ne aka neexoon ma nekk ndaw su ma nekkoon ndaw kii dinaa taxaw ci ginnaawam li muy woote ma jàppale ko ndax lii mu war a wax bu ko waxee ci dëkk bi ñu génne ko ci dëkk bi waaye aka neexoon ma nekk ndaw kooku lan la mébét tey nañ jël nañ dugg ci sunu biir kër yi ñu laaj sunu papa yi ku nekk nañ ci sa papaam mu ne papa tey loo gënoon lan nga gënoon bëgg su la yàlla laajoon tey ne la lan nga bëgg looy wax mu ne nekk ndaw kon ndaw day passé bu leen yaakaar ne nii ngeen di continuer nii la ñuy continuer abadan est-ce que nii lañ tolloon ah nii la ñuy continuer ngeen defe ne da ngaa yaakaar ngay continuer rek di cëppi cëppi di daw di daw rek doo màgget abadan yàlla li mu wax ni wax na ko maa la bindoon nga néew doole après ma may la kàttan après kàttan boobu ma teg ci nga néew doole allahu allazi xalaqakum min daaf lii ra ngoog summa jaala min baadi daafin quwa xale bu góor a ngoog summa jaala min baadi quwatin daafan màgget a ngoog lisaan dañ naan fiñ la ne jànq bi léegi ñu ne la mère léegi ñu ne la maam léegi nga dee yàggul e jànq bi suba nga jaar ñu ne la maire am na ñoo xam ne boo leen nee maire ñu ne bu ma ko waxati bu ma ko waxati ah fekk yooyu ñu ngi waaj a dee te di bañ ko leen ne maire am na paa yoo xam ne dañuy bijaaw dañuy bijaaw di ñuulal ñeneen ñi dañuy war sikkim bi sax ndax bëgguñu màgget waaye yàgg-yàgg rek dee yàgg-yàgg dee kon lii lépp yonent bi daf ñuy soññ di ñu jajj pour ñu xam ne dañu war a jaamu yàlla bu ñu nekkee ndaw mais kenn warul nekk ndaw di sànq ndawam comme ñun nuñ ko gëmee fii nekk ndaw nekk ci musique bi nekk ci lamb bi nekk ci football bi terrain bi nekk ci nekk ci boo ci deewee rek alko gis ngeen tey li xew ci année yu ñu nekk mooy ay nit yu dee ci ay terrain te dara du leen dana këng dañuy daw rek dee loolu ñaata yoon ngeen ko gis temps yi ñii di dee ci stade yi ñii di dee waaw ku dee stade looy wax yàlla wala ku dee ci terrain football bi wala bi ngay dee yaa ngi ëmbal wala ñu ngi la ëmbal wala bi ngay dee bàyyi nga fi ay doomi njaaloo looy wax yàlla te jeunes yëpp loolu lañ gëm il faut ñu delloo suñu xel ñu xam ne l'islam dafa fonk ndaw su ñëwee ci ñetteelu tomb mooy ashababu fil quran ndaw yi ci quranul karim al quran téere la bu yàlla wàcce jox ko yonent yàlla muhammad mu ëmb ay saar yu toll ci ñaata saar 114 saar téeméeri saar ak fukki saar ak ñeent téere boobu bu ñu fa demee dañu fekk yàlla wax ci ay ndaw pour lan pour ndaw yooyu yàlla di la wax seen tur yow mi dëkk Géro yow mi nekk Sénégal yow mi dëkk fu la neex nga dégg ndaw yooyu nga xam ne yow ndaw li am nga ay royukaay yooyu toppandoo pour nga mën a baax pour ñu mën cee waaru yàlla mu ne faqsusil qasasa laallahum yatafakkarun yow muhammad na nga nettali gaa yi histoire yi ndax ñu mën a xam ne am nañu ay royukaay nahnu naqussu alayk ahsana alqasas laqad kaana fi qisasihim ibra li ulil albaab borom bi ne da nga nettali alquran yow muhammad na nga nettali jullit ñi alquran ba ñu xam ne am na ñu ñu roy am na ñu ñu toppandoo mbokk yi mbër yi du ñu ay royukaay footballeur yi du ñu royukaay musiciens yi du ñu royukaay borom pas-pas yu nëb yu fënax yi du ñu ay royukaay royukaay bi ci quran yàlla wax nañu ko mooy yonent yàlla muhammad ak nit ñu baax ñi yàlla wax qudwa koy roy di ko toppandoo yàlla mu ne ulaika alladina hada allah fa bihudahum iqtadi qad kana lakum uswatun hasana fi ibrahima walladina maa yàlla nee na ñooñu ngeen di dégg yàlla wax ci quran mooy ibrahim muusa isa yusuf nuux luut salih zakariya yàlla nee na ñii ñoo baax ku leen toppandoo baax yow muhammad boo buggee baax toppandool ñii ulaika allazina hadallah ñii laa baaxal fa bi hudaahum iqtadi soo bëggee baax toppandool ñii kon kay ku bëgg a baax looy defati damay laaj ndax tànt bi am na ñu bëgg a baax am na fi ku bëgg a baax yàlla nee na ku toppandoo ñii baax jeex na kon ku bëgg a baax loolu la war est-ce que di nga takkati sa tubay ci sa xotti taat est-ce que di nga nekk góor di takk long-long di takki lamek i chaîne ah di toppandoo ay yahud ak ay nasaraan ñooñu nga xam ne yàlla wax na ne safara lañ jëm di toqalal jigéen ñi ku ñuy toppandoo jigéen bu xeesalee yaramam bi ba xonk cur kawaram gi mu def ko ay cheveux indien gémmiñ gi mu xonqal génn ay weenam génn ay poojam soli daal capp wékkoo saak ku muy roy Aïcha ku muy roy Khadija ku muy roy Zeynab ku muy roy bal sax day changé turam bu tuddoon Aïcha boo rekkoon ne noo tudd mu ne Alexis di xaa S F N o inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xoolal ku ñu tuddee woon Fatima mu ne F la hawla wala quwwata illa billah Fatima Fatima laa wax de Fatima moom mu ne F ndax duñ baax F F mooy lan feu wala du loolu feu mooy lan waaw musiba leen yàlla jubal kon am nañ ay royukaay am nañ ñu ñu yàlla won teg ko sunu kanam yàlla mu ne ñu yéen ndaw yu góor ak yu jigéen yi su ngeen buggee baax ñu baax ñaa ngi nii ku jaar ci seen yoon baax bal sax yow chaque jour ngay ñaan yàlla sirata alladina an'amta alayhim yàlla yàlla nga ma jaaral ci yoonu gaa yi nga gërëm ñooñ ñooy ñaan min annabiyina wa siddiqina wa sohda wa salihin yemoo ci de nga ni yàlla yàlla nag ma musal ci yoonu gaa yu bon yi gayril maghdubi alayhim wala dallin yàlla yàlla nag ma musal ci yoonu ñi nga mere ak ñu réer ñi chaque jour nga ñaan ko yàlla te munoo baax kon jéemoo jaar ci yoon bi ki nga xam ne chaque jour mu ngi jàng fatiha te mënta baax te mu ngi ñaan yàlla yàlla ko yàlla jaaral yoon wu baax wi te munul baax na xoolaat boppam est-ce que fatiha bi di wér na est-ce que fatiha bi sell na est-ce que fatiha bi dëggu na li bari ci ñun nag ndeysaan seen fatiha bul xam waaw xam nga fatiha boo xam boo koy jàng yàq naa bud yàq na sayin yàq naa bud yàq na sayin yàq naa bud yàq naa bud yàq na sayin ku yàq naa bud yàq na sayin looy am ci julli bi loo ci am dara moo tax nañ xoolaat suñu bopp waaw gis nga numéro bii ñu la jox muy portable bii ñu la jox numéro bi boo ci faussé benn lettre ki ngay woo du la wuyu benn lettre boo ko faussé ki ngay woo du la wuyu alxuraan bi nga war a jàng taxaw ci kanam yàlla naan ko iyaaka naabudu nga naan yaaka naabudu yaaka nga war a wax iyaaka naan ko yaaka naabudu nga naabadu naa iyaaka naabadu naabadu mooy lan il faut ñu xool suñu bopp il faut ñu xool suñu bopp mbokk yi borom bi tabaraka wa taala wax nañu ñu baax ñooñu muy yonent yi li xikamin kathira minha alqudwa bihim fi imanihim wa daawatihim wa sabrihim yàlla wax nañu yonent yooyu pour ñu mën leen a roy ca ngëm gañu amoon xoolal yonent yi li ñu daj xoolal li leen nit ñi wan xoolal nuux junni at yu manqué juróom fukk mu taxaw di woote naan kaay leen jaamu yàlla yàlla dañu nettali nuux mu ne wa inni kullama daawtuhum jaalu asaabiahum fi adanihim saa yu ma leen woowee ñu jël seeni baaraam dugal seeni nopp ki lay woo nga jël sa baaraam dugal sa nopp loo ci namm yamuñ ci ñu jël seeni yére laxas ci kaw bopp yi takk yamuñ ci ñu nuur ci seen banditisme yamuñ ci ñu woowante ba ñépp ñëw ñu ne gis ngeen góor gi yàlla da koo alak du dee bu ko kenn déggal moom Muusaa mu ne woote naa woote na junni at alfu sanatin illa xamsina aman junni at yu manqué juróom fukk découragé wul yow mi nekk sa kër ñetti yoon ngay yee nit ñi jóg leen julli gaa yi bañ nga ni pare naa ci yow sunnit bi nekk sa kër laa wax de ñetti yoon ngay yee sa jabar xadi jógal julli nga ñëw fekk nga dem jàkka ñëwaat fekk mu tëdd nga ni ko yow pare naa ci yow nu wax junni at yu manqué juróom fukk la wax de alfa sanatin illa xamsina aman gaa yi bañ découragé wul yamu ci loolu mu ne summa inni daawtuhum jihaaran summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israaran woote na guddi ak bëccëg woote lu nëbb woote lu feeñ yàlla ne junni at yu manqué juróom fukk découragé wul yàlla wax na la nga roy ko ci woote bi mu doon woote yàlla wax na la nga roy ko ci muñ gi mu muñoon yàlla wax na nga roy ko ci ngëm gi mu gëmoon xoolal Ibrahim dañ ko sànni ci safara Moussa dañ ko ne dafa xuuxaan Isa dañ ko bëggoon rey yàlla sauvé ko xoolal yonent yàlla Muhammad dóor nañ ko ba damm bëñam xuri ay oomam rey ñaata saxaabaam lañ rey dañu rey Umar dañu rey Ousmane dañu rey Ali dañu rey Hassan dañu rey Hussein dañu rey Yaasir dañu rey kuñ ko doon wax fi du jeex dañu rey Sumaya ni ñuy reyee góor ñi noonu la ñu reyee jigéen ñi tarawul ñu taxaw di jaamu yàlla kon yàlla daf ñu indil ay royukaay yi ibnu abbas nee na maa baasa allahu nabiyan illa shaban wala utiya lil aalimi ilman illa wa huwa shab yàlla musta yónni yonent mu nekk paa yàlla musta may nit xam-xam lu dul mu nekk ndaw soo bëggee xam-xam bi nga nekkee ndaw nga koy wut bi nga nekkee ndaw moo tax borom xam-xam yi ku ñu la ci wax da ngay dégg ñu ne la bi mu amee 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans ci la mokkal Qur'an yàlla bi mu yónni yonent musta yónni yonent bu nekk paa maa baasa allahu nabiyan illa shaban yàlla bi mu yónni muhammad ñaata at la am ñeen fukki at yàlla bi mu yónni ibrahima lan lañ wax qaalu samina fatan yadkuruhum yuqaalu lahu dégg nañ benn jeune ibrahima bi mu ñëwee dugg ci biir jaamukaayu xërëm bi mu jël jaasi ji daaneel yàlla yépp ba mu des yàlla ju ngand ji mu jël jaasi ji wékk ci dënn bi boobu ibrahima lan la jeune waa dëkk bi ñoo ne dégg nañ benn jeune bu tudd ibrahim xam nañ ne moo def lii yàlla bi mu yónni isa ci berceau la ko yónni berceau dafa juddu yàlla def ko yonent liir liir kon yàlla mos ta bàyyi paa comme léegi li ñuy wax nii bala may jaamu yàlla damay bàyyi ba nekk paa bala may jaamu yàlla damay bàyyi ba nekk meer ba màgget soo bàyyee ba nga màgget nga ñëw ci yàlla yàlla ne pare naa ci yow am ngeen équipe nawetaan damay laajte de am ngeen équipe nawetaan nga xam ne paa bu ciy football amul ah xanaa gëru amul ay paa lu tax paa yi duñ football nawetaan ci équipe bi kenn soxlawu leen ma ni paa bi fi ëpp xaalis gën fee jantal bu soloon mayo adidas ñëw ne ñu ne ko góor gi dimbali ñu rek góor gi dama lee rek jàppale ñu rek lu tax lu tax kenn jëlu ko li ñu soxla mënu ko jaajëf mu ngoog ah léegi nag boo bàyyi ba nga màggeen nga ñëw ci yàlla yéen ëpp yàlla fulla yéen ñii maire bi gën a rafet giro maire laa wax de nga xam ne amul jëkkër bu def solan daal di cap rose à lèvres sol mini meesu ñëw ne la takk ma da nga naan ki jinne laa gis jinne da ngay daw daan ne jinne la mère diw jinne la lu tax takkoo ko lu tax takkoo ko laa wax bëggoo ko ah léegi nag yéen ngeen bëgg a bàyyi ba màgget bëgg a ñëw ci yàlla ñu ne bala ngay jaam yàlla bàyyil ba nga màgget yéen yéen nit ñi ñoo ëpp yàlla ful la waaw bàyyee ba màgget ni la nit ñi bañee yàlla na la toogal ne ndax li ma bëgg ndaw yee ko mën kon bi nga nekkee ndaw mbokk yi ci la la yàlla soxla xam nañ ne tam bi jeexul waaye loolu ñu ci am dina doy ñu ngi ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu sunuy bakkaar li ci jub ci yàlla la li ci am ay njumte ci ñun la aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah delluwaat di sant yàlla ñu defal tawfiq ba li ñu fi taxoon daje mu jàppandal oustaz ba mu def ko si anam boo xam ne macha allah kon duñu wax lu dul yaa oustaz jazakumullah xayr wa barakallah fiik man kon dañ doon wax ne ay question dina si am waaye yaakaar naa du fi mën a xëj ngon ñu jéem a def rek ay contribution yu ndaw bu ñu waxtu bi dabee ñu dem joxe waxtu bi insha allah question bi may laaj mooy ñan ñooy afdalul quruun mooy ñan ñooy maas bi gën ci xeet yi mooy xeet bi doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu kenn sikki sàkku ko kan mooy ki leen yar muhammad sallallahu alayhi wa sallam si lan la leen yar oustaz wax na si point yu bëri bi si jiitu mooy at tarbiya bil aqida as sahiha yar si pas-pas bu wér loolu solo bi mu am suñ ko nattoon dëgg-dëgg natt bon dana jar chaque semaine ñu toog fii di si waxtaane ndax si la suñu lépp di baaxe si la suñu lépp di yàqoo du ma dugg si détail nag ndax oustaz dugg na si mais dama leen di bàyyiloo xel si ay point ñaareel bi mooy yonente boobu yar maas bi gën si maas yi si lan la leen doon yar si pas-pas boobu la leen yar nekk na màkk diir ba mu fa nekk yépp si pas-pas boobu la leen doon yar ndax nit soo ko yaree si leneen lu dul pas-pas rek mënoo réussir da ngay sonn rek mais mënoo réussir ñii di ñii di jël ger wala di nangu ay ger wala di geraate ñooñu yaruñu leen yar nañ leen mais kenn yaru leen si pas-pas bu wér yar moom yonente boobu li mu bokk na si li mu yaree xeet bi gën si xeet yi mooy qudwa alxasana amoon nañu royukaay royukaay bu baax repère ngon ku bëgg a yar wala ku bëgg a yar ki ngay yar fexeel mu am royukaay gannaaw ba nga defaree pas-pasam ñaareel ñetteel bi mooy bil amali saalih nga yar nit ci muy jëf-jëf ju yiw ngon yonente boobu yar na leen si pas-pas yar na leen si ñu am royukaay waaye yar na leen si ñuy jëf-jëf ju baax ba stop yarhamukallah mooy yar leen si jaamu yàlla ngon ñeenti point yooyu société bu bëgg yaru te jaaroo si ñeenti point yooyu yow da ngay làmbatu rek waaye buggoo am ak yar kon mu mel ni oustaz wax na fi wax yoo xam ne yaakaar naa dina nekk lu ñuy dégg waaye yan nañu yàlla defal mu nekk lu ñuy topp mu nekk lu ñuy jëfee ndax loolu mooy li ëpp solo si wax bi kon ci bañ a guddal ndax waxtu bi soreetul waaye waxtaan bi waroon na fi mën a gën a am gën a gudd ñu bëri jël fi parole waaye temps bi moo ñu ko mayul loolu tax toujours ma di leen fàttali rek waxtaan yi buñ ko mënee di teel a commencé chaque at ma wax leen ko buñ ko mënee di def après deux heures trois heures wala quatre heures pile bu cinq heures jotee nga dem julli ji ñëwaat continuer ndax loo xam ne at ba at lay am loolu jarul nga nga jël waroo ko def mu gàtt nii ndax oustaz thème bi mu préparé woon daf ko dagg waaw daf ko dagg mais waroon nañ ko may temps bu gudd mu def temam ba mu jeex ñi contribuer contribuer ñi laaj-laaj ndax at ba at lay am loolu maa ngi leen di ñaan baax ngeen bàyyi ko xel nguur bañ a guddal ñu jox suñu oustaz suñu imam oustaz kii suñu doomu sëriñ la te gars yi dañ ne sa doomu sëriñ sa sëriñ la ngon ñu jox ko kàddu gi rek mu barkeelu si incha allah